سرى طيف معا يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى سرى طيف معا يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى سرى طيف معا يا أخي قد هوى غرام سواء سرى سيف ماك يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام سواء وإن الفؤاد لفي لوعة ويزعج شوقه والجوى سرى سيف ماك أخي قد هوى به القلب فيه الغرام توى فإن الفؤاد لفي لوعة ويزعج شوقه والجواب فما لمداو دوام هوى سراطف من جاء جدوى حملني بورم دارجي دوت فيك فيه جدوى نحكت بالعلم والتعليم فقتم غيراكم غيراكم والبذل والإنفاق والإحسان برندار sufikat fiihi jadwa Cheikh Tidiane maktum kooku ko fiihi jadwa Cheikh Tidiane Si booram kooku dafa góore fiihi jadwa sëñ Abdou doy na mag ñi doy na ndaw fiihi jadwa sëñ Abdou doy na mag ñi doy na ndaw ñi fiihi baatu parole bi doy na mag ñi doy na ndaw ñi fii jatwa waaye boorom daara jee dootu fi gog fii jatwa kon dundal ndax kat yaarat sa kon xelal lebi maanaaw ànd leen ak kub yar ànd leen a ko yar. alhamdulilah rabbi amiin. alhamdulilah rabbil alamin. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. sëriñ bi sëñ El Hadj Abdou Karim nee na ñu ngi lay nuyu di la ziar. di la ziar ziaru xol. di la ziar ziaru xol. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin. da nga dund da nga dundal lu say papa bëgg. nee na yàlla na nga dund. da nga dundal. lu sa papa bëgg. li sa papa bëgg. mooy njaambur gii. mooy njaambur gii. dinaa sëñ Babacar radiyallahu taala anhu mu ne Cheikh Sidi Aboubacar radiyallahu taala anhu bu waa Njaambur xamoon li mu leen defal. bu njaa waa Njaambur xamoon li mu leen defal. daañu bàyyi seen lépp jàpp ko. danañ bàyyi seen lépp jàpp ko. li mu am lépp indi na ko fii. li mu am lépp andi na ko fii. fii la jënd këram. fii la jënd këram. fii la tabax jàkkaam. fii la tabax jàkkaam mu ngi nii. ndeyam. fii la denc yaayam ma ngi fii ci biir. lépp ma ngi file. ab jigéenam ma ngi fii lépp ma ngi ci biir. lépp ma ngi file. lépp ma ngi ci biir. te ndeyam ji tëdd fii te. te nee na ndeyam ji tëdd fii di maam Roqaya Njaay radiyallahu anha def na kéemtaan bu kenn mësul dégg déglu leen nee na def na kéemtaan bu kenn mësul dégg maam Roqaya sama yaay soxna Asu ko nettali nee na maam Roqaya loolu mu def sama yaay soxna Asu mooma ko nettali maam Roqaya dafa nekk ci sukuraat neena na maam Roqaya dafa nekk ci sukuraat nee ma woo soxna Fatma jabaru góor gi taabaan woon nee na mook soxna Fatma jabari góor gi taabaan woon nee mu toog ma toog nii nee na maa ngi toog mu toog. ñuy tari suuratu yaasin. nee na ca sukuraat sa. ñuy tari suuratu yaasin. ba maam Roqaya dog. ba maam Roqaya dog. su ma yaay nee ma takk ñaari baaraamu loxo yi. nee na yaayam moo koy nettali nee na mu takk ñaari baaraami loxo yi. takk ñaari tànk yi. takk ñaari baaraamu dëyu tànk yi. nee na jël layub suuf def ko ci dënn bi. dem dellu si ni ko Roqaya yaa ma jaaxal. nee yaayam. ñëw ci yaayam ne ko man dey Roqaya yaa ngi may bëgg a jaaxal nee na. li nga daj ci Seydi Hadj Malick. yow li nga daj ci Seydi Hadj Malick. génn àddina. nga gën mën a génn àdduna. te sa doom ji ñëwul ba ngeen gisee. te sa doom ji Seydi Aboubacar si ñëwul ba ngeen gisee. muy sëñ Babacar. muy sëñ Babacar. daal di dem. nee na mu wax ko loolu. daal di dem. wàññi ko dellu si. nee na moo wàññi ko waat dellu si waat. fekk maam Roqaya xoole. fekk maam Roqaya xoole. wallahi nee na wallahi nee na ma yuuxu nee na ma yuuxu naar bi ni ko yaa ko def naar bi ni ko yaa ko def ba Serigne Babacar radiyallahu taala nuñ cëpp ba Cheikh Sidi Aboubacar ñëw ba ni cëpp di te tëjoog yaayam daal di jog yaayam kenn xamul luñ doon wax kenn xamul luñ doon wax na ëllëg sa waxtu mu gaañu woon ca ba ci ëllëg sa ba waxtu wam gaañu woon mu soog a gaañuwaat mu soog a gaañu waat nee na Cheikh Sidi Aboubacar Seydi Hadj Malick lu mu ko wax yaa usati عملي توكلي للإله الخالق الجبل mu ni ko firil firi yaa nuzhati yow sama mbég di sama saata gaay yi nga xam ni yow laay bége xuratal ay nay ni yow nga nga xam ne yaay sama ñuul ñuulu ñaari bët yaay sama sedd xol yaa amali yow sama mbébat tey ak tawakkali yàlla na nga ngalawaay na nga wakkiirlu lil ilaahi ci yàlla alxaaliqil jabali ki nga xam ne ki moo bind doj yëpp wal taamali ana haadi daara faaniyatun wa kulluna raaxilun tuube li mumtasili wal taalami na nga xam soxla njaay soxna roqay njaay mii la sidi haj ma dooro wal taalami na nga xam ne anna haadi daara kër gii faaniyatun day jeex de wa kullu naa képp ci ñun nag raaxilun ñëpp dañuy laxas waaye tuubee li moom tasidi ku temm ci ndigalil yàlla kookee day am na tiraanga tey adduna ak àllaaxira tuubee lahu aafaaki aafaaki rabu laa sharika lahu xayun samiun basirun duuna ma muqali aafaak yal na jéggal la aafaak yal na jéggal la rabbun borom boo xam ne laa sharika lahu amul benn xeetu bokkaale ñeel yàlla yàlla yal na yal na nga jéggal sama soxna si soxna Roqaya Njaay yal na la jéggal yàlla moomu nag xayyun moo sax ci dund faw gu deedul topp samiun kuy dégg la ci lu dul bët waaye basirun kuy gis la it ci lu dul nopp samiun day dégg ci lu dul nopp waaye basirun day gis doona maa muqali te amul nagu bët wa xaalilihi wala tuxaalili abadan xayra ilaahi li xayri laahi laa tamili laa tastaini bi xayri laahi afdalu man xadistuna tuina bihi wal xayru du fashali Cheikh Al Hadj Mari ne waxaali lii na nga yow Roqay Njaay wala tu xaali lii bul xaritoog mukk abadan faw xayral ilaahi kudul yàlla wala tamit lii bul jengit li xayrillaahi jëm ci kudul yàlla yàlla rek mooy fans bu mat mat sëkk bi ko laa bul sàkk ko dimbali ko mukk li kudul yàlla bul dimbale kudul yàlla afdali man qad istuina bi mooy ngeen di ku ñu dimbadikoo nag wal xayru kudul yàlla doo fasali dana yonjax bis la mu ñàkk yëpp la amoon yëpp dana ko ñàkk waaye yàlla dafay des ba faw loolu la Seex al Hajji Maalik wax nag ni kon confirmation la ci la mu waxoon ni dogoon na ba pare xaar Sëriñ Babacar ba ñëw mu door a dogaat ki dem ba des barsax nee na ki def def xaar ba dem barsax dellu siwaat dellu siwaat boobu kiraama ci moom laa ko mas a dégg boobu de kiraama da ci maam Roqay la ko mas dégg nekk ci moo nekk fii ci biir moo tax mu ni Cheikh Seydi Aboubacar daal yàpp daal la mu amoon jox na ko ñeex la amoon lépp jox na ko Seydi Mouhamadou Mansour mii nag Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour mii nag yàlla na ko yàlla bàyyi ci suñu kanam cëram moom cëram moom man la ko yàlla jëkk nee na moom mii toog moom la ko yàlla njëkk a woon maa gént nekk ci bàmmeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa gént waaye sëñ bi nee na ko yow doo gént parce que ku toll ni yow géntatul damaa gént toog ci xabru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàgg ri malaan mi di def nii nee na ma jékki-jékki subaaka boobu mbalaan mi ñu wëralee xabru yent yàlla muhammad di raf-rafi di yëngu sallallahu alayhi wa sallam wallahi tallaahi nee na ma ngi koy giñ billahi wallahi tallaahi sëriñ Mansour pël génn ci nee na bàmmeelu Seydina Muhammad jeesuma nee na mu geesu ma. ma ni ko nii sama loxo. nee na man mu ni nii sama loxo. mel ne avion buy naaw. mu ni ko noppil bul wax dara mu mel ni avion buy naaw. nee na tàllal wuti wàllu Tiwaawan. ba ma ko nettalee sama nijaay. nee na ba ma ko sama nijaay Serigne Babacar Sy. na mu ni ko. ah am na lu sa jàmm wax de. am na lu mu gis waaye bu leen ko nettali waaw. kon daal maa fii fii sara sayfu man ya axi qad hawa bihi alqalbu fihi algharam sawa